Euh, comme ni ngeen ko waxee dama demoon seeti ki nga xamante ni mooy moo Gueye héritage oh. kenn dootu ko présenté ci yow ah. ah, bu la defalee sur mesure sur mesure da nga naan prêt à porter nga sol ah, bu la defalee yére tamit da nga koy ci design bi mhm. c'est-à-dire ñëwam da nga koy gis même boo bu la soree parce que euh, ci classe bi ak ci dagg bi ni muy setee macha allah loolu moo Gueye rek moo ko mën def ma ne nag xaama dem seeti ko pour qu'on parle un peu de son parcours fan la jógee ak euh, ni mu kiwee ñu dem xool élément bi léegi ñu rew ñëwaat alors gars yi gis ngeen maa ngi fi nga xamante ni mooy showroom héritage couture alors ku xam moo duggee nag xam ko ci ñaw yu rafet ba pare ñaw yu set am classe waaye laata boobu damay nuyu jongoma ju rafet ji soxna si noo def. maa ngi fi ça va maa ngi si jàmm ana moo duggee. moo duggee ci biir. wuy ma bu ko wax dara bàyyi ma dugg fekk ko ci biir. <laughs> merci beaucoup. salaamaaleykum. maaleykum salaam. mais Modou ci loo ne. maa ngi nii maa ngi sant bu baax. waaye yaa ngi ci jàmm tey dama laa bett de. waaw ah, tey moom gis naa ne bett nga sa frère mais mënul ñàkk ci liggéey bi la. ayca gis ngeen naa ah, moom mooy euh, Modou Gueye di sama frère di sama mag di sama xarit dama koy nuyu rek euh, bàyyi ko mu nuyu ak téléspectateur yi. waaw maa ngi lay nuyu Samira di nuyu téléspectateur yi ñu seetaan yëpp euh, di leen ziar di leen baalu àq di leen ndokkeel ci at mu bees mi ñu dugg nii. alors Modou euh, li ma bëggoon tey ñu waxtaanee mooy xool naa boutique bi macha allah bi ma fi gëjee ak bi ma fi ñëwaatee aussi impeccable donc li ma bëgg ñu waxtaanee mooy euh, jaar-jaaru Modou Modou fan la jógee tey ba euh, nekk li mu doon nii tey. waaw loolu nag dinaa ci sawar parce que jaar-jaar moom yàlla dogal na am nañ ko li ñu doon nag dañ ko doon muy ñaw mais ku ne xam ne ne famille bu ma am day ñaw. Euh, maa ngi ko jëlee ci samay wayjur yu góor euh, sam papa da doon ñaw mais ginnaaw loolu tamit ñu jàng métier jàngin woo xamante ni képp ku ko mës a jàng rek euh, di nga am yaakaar ci après di nga xëy na suñ borom bu dogalee di nga jariñu daal. parcours bi xam naa ni yombul loolu moom comprendre naa ko mais danga ñuy wax da ñuy expliquer maanaam yan jaar-jaar yan dund nga ciy jot a dund. waaw euh, dund nañ ci lu bari nag euh, bi ñu démarré ñu ngi commencé jàmm gën sam papa moom fa yóbbu woon euh, marché Thiaroye tamit jaar nañ fa bi ñu jógee foofu après ci lañ dem Pikine ci Barawad jógee foofu dem ci Baydaam Joxaane jógee foofu dem Galerie Payenne mu nekk jaar-jaar bu metti nag boo xamante nii daan nañ toog pour ñu dem sax am paas boo xamante ne nii day metti ci ñun mais nag loolu yëpp boobu dañu doon tàggat ci tey nit ki bu demee ba yor Euh, ay xale nan la leen di euh, téye euh, metti woon na trop nag wax dëgg yàlla parce que ci diggante bi am na ci moment boo xam ne ci bi may jàng ñëw benn moment metti na sax après ma ne non naa dem jaay ji sax pour mën a soutenir famille parce que tak àdduna moo toll foofu dem naa ba di jaay warga daj naa jaar-jaar yu bari à la suite la ma sam papa wax ne ma comme ñun ñëpp ci lii lañ nekk te ci lañ leen ñaanaloon suñ maam ñaanal ñu si muy sëñ xaar gay Euh, ci lañ mujj ñëwaat nekk galerie ba yàlla dogal na foofu lañ ñu beree ñu beree nag tamit euh, am nañ ay jaar-jaar parce que maa ngi doon fay place dix mille francs mais boobu métti na méttiwaay boo xam ne nii pour nga wàccoon sax am paas boo ñibbee problème lay doon euh, daan nañ toog nit bu ñëwee di ñu jaay portable ñu jënd ko bu ñu ko jëndee. dem jaay ko pour mën a am lu ñu ñaw pour mën koo ñëwaat jaay nit ki di ñëw ñu koy fay ndànk ko kon xam nga ni euh, jaar-jaar yooyu yëpp nag euh, ci sa jeunesse nga koy def mais nag yàlla dogaloon na tamit bëggoon nañ nag liñ doon def muy métier bi yàlla dogal ci ñu nekk ci di ci góorgóorlu euh, des fois ñu ñawal nit mu ñëw kontaan des fois ñu ñawal nit mu ñëw ne ok ndax kii moom mooy ki doon ñaw mais yooyu yëpp jamono boobu bëgg-bëgg bi rek ak gëm-gëm bi moo taxoon euh, xëy na yàlla suñu borom tey euh, ni ñu ma fii. tey ana ban message nga mën a lancer jeunes yi nga xamante ne euh, bëgg nañ dugg ci li nga xamante ni mooy couture wala quoi que ce mais saay suñ jàppee rek dañuy gaaw a wala ñuy bàyyi ban lan lan nga leen mën a wax. jeunesse bi war nañ gëm ne ñaw mën na lu ne. te foog nga fonk ko bëgg ko bu dee kuy jàng métier na fexe tarbiyo ki nga xamante ni moom la nekkal ba mu ñaanal ko ndax ñun moom lañ ñu defal Euh, bu dee koo xamante ni tey euh, jeunesse la tamit nekk di jàng métier na ko fonk nangu euh, respecté ko ngir bu ëllëgee rek njariñ mën na ko cee fekk. je suis partie derrière la woon ma ñëw seet ki nga xamante ni mooy moo Gueye ñu waxtaanee li nga xamante ni mooy jaar jaaram et tout ça donc on se donne rendez-vous ci beneen numéro. alors gars yi gis ngeen maa ngi fi nga. from zero to hero di ñam euro te dero yaa ngi heureux donc loolu yaakaar naa ni euh, ku ko doon rek wala nga def ko war nañ ko wane ba xale yi euh, mën a roy ci yow Samira mhm. Coulibaly effectivement Abba comme li nga wax rek ah moo Gueye moom il n'est plus à présenter dans ce pays macha mais day baax parfois nga seeti nit pour mu lay expliquer ay jaar-jaaram te man bi mu ma expliquer bi ñu toogee di waxtaan mu ni ma jaay na warga imagine toi Modou Gueye boo ko gisee doo ko foogee jaay na warga jógee fa <laughs> jaay na war nga jógee fa di jaay ay téléphone xam nga di rango ay téléphone di ko jaayaat tout sa pour vous dire que euh, nit dara xëyul sotti dangeen di patient ci lépp lu ngeen di def projet bépp bu ngeen bëgg a dugg euh, gis nga ni duggoon na ci li nga xamante ne mooy couture ba ci yàgg mu bàyyi ko dem seeti leneen mais xam na ni euh, ci famille wam ay parents am dañu nekkoon ci li nga xamante ne mooy couture ak kooku di Serigne Maam Xaar maamam vraiment mu tàggat ko ci li nga xamante ne loolu la bëgg ñu dem Bersen Daara daal di dem galerie di xos lu ndànk-ndànk mu métti nag parce que nee na 10 000 lañ doon fay foofu chaque weer bu dee e parfois sax du ñu gagné loo xam ne 10 000 la donc c' très dur pour lui euh, juste pour vous dire que surtout la jeunesse comme message bi mu lancé mooy ngeen gën a góorgóorlu et que ngeen gën a ci lépp lu ngeen di def ci àdduna parce que dara xëyul sotti comme on dit abaa ni ngeen koy gisee man ni ngeen. li ma bëggoon tey ñu waxtaanee mooy xool naa boutique bi macha allah bi ma fi gëjee ak bi ma fi ñëwaatee aussi impeccable donc li ma bëgg samedi bi di ñëw nga dema